ñu ngi wax leader bi nga xam ne bii mooy Ousmane Sonko ñu ngi koy indil suñu soutien absolu et ci li nga xam ne ni moom la ko nguur gi di teg suba ngoon te duñu ko bàyyi. six procès dañoo gis ñaari yu tàkk rek mais ñent ñeent a ngi toog di xaar ci xalum déef loolu moom daanaka cent soixante personnes téeméeri nit. ak juróom benn fukk su ma jumulee ci diggante weer wi ñu ngi leen jàpp dugal leen ci kaso bi ci lan danga ngaa marché te kenn autorisé wu la ko ci interdiction yoo xam ne wéru teguwul ci dëgg ndax lan dañ laa fekk mbedd mi ndax la da ngaa xeeñ lakk lacrymogène bu ñu sànni fële 300 mètres lacrymogène di ko naaw nga romb ngelaw lacrymogène laal la policier dañ lay xeeñ da ngaa xeeñ lacrymogène kon ci gars yi nga bokkoon